mu ñëw fi ci turam nag délivrer leen message mooy li nga xam ne defoon nañ ko ci élection législative bi ba département Tivaouane yépp mujj ci loxo Yewwi Askan Wi mujj ci loxo suñu coalition lu ko raw lañu bëgg Tivaouane taxawee ko ba dimanche incha allah bu ñuy lim département yi nga xam ne ñoo ëppale score wala commune yoo xam ne ñoo ëppale score jëmale ko ci président Diomaye Faye ñu ne Tivaouane mooy premier est-ce que waa Tivaouane mun ngeen garanti loolu kon am na loo xam ne sax mun na bañ a gudd munoon naa bañ a ñëw sax campagne bi defe waaye campagne bi di ci des bëriwul liñ leen di ñaan nag suba moo ci des jeudi ak gannaaw suba vendredi xam nga nag liggéey toujours fi ñuy koy yeggalee fi ñuy wax finition bi moo ëpp solo mun nga tabax bâtiment bu dëgër waaye dem jënd karo yu bon wala peinture bu rafetul ku romb daal kër gi baaxul kon fi mu ne ñu ngi ci peinture ak karo ak sanitaire mooy ñaari fan yi des ci campagne bi dañu bëggoon kenn ku ne ci yéen bu doon benn doon def na ko ful def ko juróom parce que victoire bi ñu bëgg a am victoire bi ñu bëgg a am ci suñu gars yi warul doon victoire bu am lënt lënt ñu naan ay cinquante virgule cinq pour cent la wala ay déedéet dañu bëgg mu tuut tuuti mu doon soixante wala soixante dix pour cent kon dañu wéyale liggéey bi li wax nag fii ci wax wax ko waa Sénégal yëpp am na benn application boo xam ne defar nañ ko ñiy jëfandikoo internet muy warndombo point sn parce que ñom jaxase carte bi ñi def kenn mën na jóg dem bureau de vote bi mu doon wootee ñu ne ko nekkatoo ci bureau de vote bi waye ku dugg ci application boobu warndombo point sn dina la wax yow sa bureau de vote fan la bu dé changer nañ ko di ko xam bu dé changer nañ ko di ko xam bu ko défé dimanche boo xëyee da ngay dem directement def sa farata loolu am solo ñaareel bi mooy nañu jëli carte électeur yi ngir yàlla bu amee ñu ko jëleegul man xam naa ni quatre-vingt-dix pour cent ndaw ñi jëli nañ ko ba pare waaye dix pour cent boobu des ñu ko dem leen ngeen jëli carte électeur yi dimanche teel leen jóg yéen ñëpp ngeen dem vote yi waaye bu ngeen votee ba noppi surtout jeunes yi mag ñi moom bu ñu wotee pare dañuy dem kër ga noppalu waaye jeunes yi bu ngeen wotee ngir yàlla xam leen ni élection bi mooy seen avenir ne ñaar moo am soit ñu bàyyi tappale bi fi nekkoon boobu ba léegi mu wéy ci sàcc xaalisu réew mi te tourné xaalis bi te réew mi tey la ko tubaab bi wala ñu ne dañuy soppi définitivement daal di moom suñu réew moom suñu bopp kon su ngeen votee ba pare toog leen bu leen sori bureau de vote yi leen vote bi na ngeen bi ku ñëw ci biir centre yi bu nga def sudul noonu na ngeen ko jëflanteeg moom bu ko defee bu ko defee ba heure bi ñu tëj bureau de vote wàññi xob yi ba mu leer ni fii Tivaouane président Diomaye Faye am na fi 75 pour cent bu boobaa mën nañu génn dem jubilé dem dugg ci dëkk bi kontaan xam ni yàlla liñ ko doon ñaan jot na ko boobaa dañuy commencé rek liggéey suñu kon waa Tivaouane ñu ngi leen gërëm sant